and then Babacar Diop la toj sakal Fatim Ibou Sakal weex Ibou Sakal ñoo ngi koy ziar ndeysaan grand Fatim c'est mon grand frère grand baa ngi nii la doyen Fatim ñu dem ndeysaan arbitre laaj na leen ndax pare nañ waaw ñu ne pare nañu ndeysaan nee nañu pare nañu Ibou Sakal Mambal ndeysaan Babacar arbitre combat bi Babacar sifflé na waaye bu fi nekk di xoolante ay Senghor Fatim nañ ñëw Fatim. 5 mètres dox na seen diggante. nañu daje Fatim bu ñu dajee dañuy cokki mbaa ñu bëre Fatim. 5 mètres dox na seen bu ñu dajee dañuy bëre mbaa ñu xeex kon nañu daje Fatim. maam Balla nee na jóg leen. ah ca Fatim ñu dem. maam Balla nee na supporter yi jóg leen. da koy gëdd. maam Balla ngi gëdd Ibou Sakal. maam Balla ngi gëdd Ibou Sakal. Abou Sakal mel luy dem demul demul Fatim. non demul buur ña ngay demantey baaraam. daa dem. ndeysaan ña ngay demantey baaraam. bilaay daa war dem Fatim. buur dana dem dana dem ah maam Bala Cok. maam Bala Cokaas na dara amul. Sakal. fayu na day fayu. dëkkub doore. fayoo ko tas. fayoo ko ca na neex. xoola estar bi ni mel Faram Diop da baax. non estar bi fees na dellu. mais day neex lamb la. c'est un sport bien de chez nous. Ibou Sakal Ibou Sakal maam est-ce que li ma Fatim noonu la. noonu la Fatim yow maa yooyu sem la nga dàqee da baax ah ca kon. mais gis naa léegi sa copain Amadou Diouf. Madoune Diouf c'est mon ami. Baye Mohamed. c'est mon ami séeréer baa ngi nii. Saal Madoune Diouf siin la dëkk. buur siin mooy maamam Maodo Diouf yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ Diouf e eh, ñaari yaa ngi xeex ee eh, waay indi ci noo ngi noonu ca waay maa ngi yëngu Fatim e neexul neex na ngewal neex ngewal laa Fatim maa ngi dem Fatim maa ngi dem Fatim non buur man xam ngi dem dama neex da baax. ante waa ko buur. non buur xamoon ni ni nga mën a. lébu laa ana buur. man xamoon sa tànk bi kenn du ko. lébu laa Fatim. songoo nañu faqat. laa ilaaha illallaah. e eh, Ibou mi garaaw na ah. e eh, Ibou Sakal mi garaaw na. mu koy rokkos. xool nga faqat bi mu ko faqat. naan jëla. ah ñu ngi xeex. jaan bàyyi liiru jaan damay woo wuli de. ah ayca. liiru jaan le 4 janvier. liiru jaan na jëli revanche am am na drapeau ba na bëre waate wuli mu leer leerul Fatim. kon nañ ko leerale fii Dakar. maa ba leerul dafa war a leer. nañ ko leerale fii Dakar. ndax liiru jaan ñu buur baal ma rey ko. <coughs> maam Balla. eh Dombo. wala ko doom eh, yàggul oh. bëtt na ko day dem billaay su bañee da koy war noomal takk ko mu jug gis nga day tari day tari maa la wax lii Fatim day tari day door bàyyi day bàyyi dooree tax am na foofu fu la ma jeex na gis nga ah ah ah ah, ah Mame Balla yee eh, bu sàkkal moytul maam Balla. na moytu. ndax léegi foogoon naa ni fas bi na suuf. maam Balla Fatim mu ngi jël ay coups. bu sàkkal li muy def ci noonu Fatim. dafa waroon del su ba gën koo féetee gannaaw. féete wu ko gannaaw daa baax. ayca mu ngi dóor. kanam gi moom tax na suuf moom. mais bu sàkkal bu ñàkkee occasion bi am problème Fatim.

li muy joxe ci effort day bari. ba pare njo njo njool mu sëgg lu yàgg baax. waaw ba yàggul te ki muy bëreel du ko tëlee fi mu nii jom rek lay demee ak ngor jom ak ngor rek lay demee da baax. oh ndeysaan ndeysaan oh. xoolal yoo war na xondoom ba nag léegi. Oh. tëddal tëddal jébbalul benn yoon Mame Balla. maa lillaahi wa rasuuli. Mame Mame Balla lillaahi ko njëkkee. Fatim Mame Balla dimbali ma te yàlla tax nga tëdd Mame Balla. eh Mame Balla wuyul buur. Mame Balla dama la koy eh, Balla wuyul buur. Mame Balla ngir yàlla ma wuyu nekk na ma wuyu. Mame Balla wuyul buur. Fatim na ma dimbali tëdd Fatim. oh là là Mame Balla dëgër nga bopp. déedéet waaw arrêté nañ ko arrêté nañ combat bi te dañuy jox victoire eh, Saka la ñuy jox victoire. xoolal gémma ñu Bamballa gi. Saka la ñuy jox victoire. tamaate jeeg bu jar moom la doon lekk Fatim. xam nga xam nga buur xam nga buur boo xam nga buur boo boo waree nit ki doom moo cinq coups rek boo ko dooree. tamaate jeeg bu jar lañ ko sexal Fatim. oh là là. maa ngi ñaan yàlla ko heureusement non dégg na la dégg na la. dëgër bopp dafa dëgër bopp nag. mbër doy nañu का am nu yaakaar ay Moodu waaw góor waaw góore ay mbar doy na nu yaakaar ay waaw góor waaw góore ay mbar doy na yaakaar yaa ngi ci yow soirée dox ci diggante Vito ak Boy Maroon. Vito ak Boy Maroon. ndeysaan Vito moo féete suñu Vito moo féete Maroon ndeysaan ah, Maroon ay wax loolu. ndeysaan moo naan Maroon maa ngi laa nuyu maa ngi laa ziar. mais Boy Maroon yi nga xam ne bu góorgóorlu la mbër lay doon. walaay ndeysaan Maroon ak Vito. Boy Maroon. Boy Maroon Vito suñu droite Boy Maroon suñu càmmoñ ah ca nañu daje mu neex Fatim mais xoolal ñaari mbëri kenn ku ne yaa ngi ca kaw. waaw waaw yàgg yàgg runkum daje. daje. saan yàgg yàgg runkum daje Pape Ndiaye Aïda Bouba ngi doon ci waye ndeysaan. borom Malick Fa Yaama. ndeysaan. Fatim waa Allemagne ñu ngi lay nuyu Fatim. waaye waa Allemagne maa ngi leen di fay bu. nuyu nañu leen. bilaay ñoo ngi leen di fay. ay Dakar Actu Fatim. cey Dakar Actu. ay Fatim Dakar Actu lii maa jàmm la. Bekaay nee na boo leen jekkoo dee leen baale. du nu baale Fatim des na Fatim. ndeysaan. Vito suñu ndeyjoor. Boy Maroon sunu càmmoñ. ñaari mbër yi ba léegi kurpeñ dalagul cango amagul buur. daara amagul daara amagul Fatima daara amagul te taxul woon ñu jox leen avance. déedéet déedéet déedéet. nañu bëree. ah booy ma doon naroon na bay dem te demul. waaw booy ma doon dox na ci kaw. naroon na mel ni kuy dem te demul Fatima. waaw na taxaw na vitoo taxawul. taxawul xaax daw. moo ne Vito Ndiol la de. waaye boo xoolee ni mu ajee garde bi nga war a xam ne. Khadim Kour bañ ñi daa neexul nag de. bañ ñi da daa neexul. ay croisé neexul Fatim. drapeau maam jaara faam ndeysaan. ndeysaan maam jaara faam. moom jigéen jom jom da baax. kooku mooy jigéen ju mën góor bu. ndeysaan borom ma ñaare toscarento ayca dajaleel ndeysaan ndeysaan ndeysaan Babacar Diop ndeysaan Babacar Diop baa ngi noonu ayca ndeysaan bare wuñu awa Fatim Babacar maa ngi laa nuyu Babacar bare wuñu awa da baax non non bare wuñu bare wuñu bare wuñu Vito bare wul pour bare Lamine wax na ko Lamine na ko wax mais buur mbaa du Vito dafa tàppet. Vito nanguwul bëre Fatim xaw ma lan la. ah. xaw ma lu tax nanguwul bëre. ah. arbitre sifflé waat na. ah arbitre sifflé waat na. Boubacar Diop. ndeysaan. wallaay ndeysaan wala Serigne Ndiaye il est concentré. mais mais li mu joxe bëri na. mais xale la Fatim. Oh, xale la nag. ñëw lamb 3 heures ci ngoon. ba 22 heures mu di ko mbapat. am na compétition. Fatim Vito luko dal. xoolal Vito. Vito lu ko dal Vito gi mel na ku koy ba max Bito lu ko naqari Fatim. looloo ma jaaxal buur. baax na yàgg yàgg bëree. loo bëgg ma laaj ko ko. ah Fatim. ah. xanaa de fi mu ne mënoo dugg ci géew bi. Vito taxawal bëre. Vito ngi naqasaale Fatim. yow mi ngi naqasaale kay. ah door nañ. xeex nañ bëgg naa lii da baax bëgg naa ko bëgg na Vito. door nañ ko mu daanu daanu na door nañu Vito mu daanu Fatim. door nañ ko mu daanu. Fatou Biton lii la doon daw ah. lii la doon daw. xamoon na lii. xamoon ko xamoon na yortoon ko. wax ko Fatou. lii la lii daw. ko door nañ ko mu daanu. amul vitamine Fatou. déedéet amul vitamine. amu ko.

3 heures ci ngoon Fatim ba 22 heures des fois 7 heures yi daal depuis xale la. moom Medoune yëfam yi gudd na di. Medoune Diouf kilifa la. kilifa la. ah mais sama xarit la nag kilifa. buur arbitre ngi wax ak ñaari mbër yi li làmb nangu ak li la. maa ñu dagg arbitre. muy moo ko sabab. aca Ochod ak Mor Kankang. ak Kankang. Mor Kankang fee dee seen na yor Ochod fee dee seen aca o sodd bu yarax nañu daje mu gaaw Fatim waaw dañoo tolloo tolloo taay tolloo taxawaay kon bu ñu dajee mu neex waaw waaw bu ñu dajee mu neex waaye ñoo ngi léewtoo kurpeñ dalagul kurpeñ dalagul roofooguñu dara amagul dafa juum moos buy waaw Babacar Diop jàppal ma jàpp ci Macky Sall daa juum xaalis daa nan ko baal tey waa PDC baal Fatim dañ ko baal da ngay seet lii rek Fatim da ngay seet rek xam nga mooy way ni tax xamoo ko moro neen dama juum dama juum lamba neex Fatim lamba neex ñaari ngi doxee latéral go o Cheikh Mor Mor Kankang na ko ni Kang. waaw na ko ni Kang. Osod na ko lakk Fadam. waaw waaw Osod waru moom it lu waaw. Mor Kankang nag dina leew too biir. xamul lii lu mu doon. yaay buur xoolal employé sa confortable yi. waaw xale yi léegi dañoo fashion Fatim dañu pop dañu fashion. mais buur lii lamb rek ko mën. lamb rek koman mën. lamb yaa ngi ni kenn bougé wu. te ñu ngi xeex lamb fu ne nag Fatim. eh mais bëre leen waaw waaw. eh bëre leen waay. waaye. ñoo ko tay nañu bàyyi leen ñu bañ a bëre Babacar lañ taseel Babacar amulu caaxaan. amulu caaxaan da leen di sanctionné léegi. léegi. wax di jeex. waaye déggal xaadim bu dul sekk. waaye daa juum sànq Fatick. ayca. ayca wala Serigne Ndiaye mu ngay cokk cokk rek Fatou. nee naa la il est def ma pat eh. ah Ousseydou Kang nee na ko Kang. déedéet Kang. ah com morca. Kang la ñu Kang. Mor Kang ka moo féete suñu day. ayca Fatou. ña ngay demantey ba. ah Ousseydou gi bëgg a répliquer Fatou. Ousseydou daa bëgg Mor Kankang taxawaat na deex na Sodou daw na jël frip saan xoole Gris Bordeaux ak Serigne Ndiaye waaw deuxième sortie face la Fatim tey bu ñu ndam du baax Fatim noo du baax du baax Sod ak Mor Kankang oh, Sod Mor Kankang ndeysaan si toor mais buur arbitre yi sonn nañu sonn nañu te li ñu bëri amagul njariñ Fatima sonn nañu te li ñu bëri amul njariñ sonn nañu o oh, jege nga saaku moo oh, soodu bul génn saaku yi jege nga saaku yi amul benn werante buy génn saaku ñu buy génn di jël avertissement ah waaw mi dugaat ci biir au oh, sud Fatim ndox mu nugg ah mbaa nuggul non non yaakaar naa nuggul ah, yaakaar naa ko yaakaar naa ko yaakaar naa ko mi door ci baax na ndeysaan dul sekk manqué na fi Fatim non manqué na fi waaye heure bii la daan way laa ilaha illallah yàlla na ko yàlla yërëm waaye tey nee naa ndox mu tàng la nuggul dafa tàng la fan Bacer Bacer Bacer maa ngi lay Paa Thierno noo gisee bëre xale. alhamdulilah xale yi dañ ñeme ñante lii bu dakkul léegi dara feeñ. nee na lii bu dakkul léegi dara feeñ. oh la la ko. kankan daan na ko. daan na ko Fatim. Mor kankan daan na ko. Mor kank nee ba noppi daan ko Fatim. kank daan ziar di sant yàlla. nga bëre dem mu ñu jox sa adversaire victoire lan ngay wax. waaw sant yàlla ndax arbitre bi doomu aadama la rek day juum nangul nañ ko juumam parce que nit matul mais adduna yoo xam ne dañoo daan te ragaluñu loolu li ñu waroon si làmb def nañ ko ànd ak suñu mbokk ànd ak waa Ngor ñëw nañ yàlla may nañu ndam bu sedd gu ñu ngi koy sant yàlla. mais nag xeeru Ngor démb dañoo gis yow loo xam ne nii ko woon gis yow. waa de jour à jour dañuy gis lu bees parce que ay tout temps lañ nekk si làmb caaxaan andu ñu fi ñu nekk dañoo liggéey ba ñëw fi suñuy gënaat yu jàppale kon dañuy gën a liggéey rek dañuy gën a gis lu bees incha allah bu soobee yàlla. da ngay def recours wala. doo dañ koy def dañ koy def incha allah waaw. may sargal dañ may décorer waay waay lii lu koy fay jar na liggéey ba dee barki rasulillah. dóoraat ku dóoraat ku dem jëriñ. pourtant nag Tafa ci biir reportage bi maa ngi naan Tafa moom moo dóor mais moom lan moo lan moo tee mënul daw ñu ñëw jàpp ki nga xam ne ni moom mooy Tafa. waaw parce que xam nga. Max Mbargane dafa xam làmb ba ma jëlee tànk bi Max Mbargane nee na ko xaar ko foofu dana ñëwaat Max Mbargane bu ko waxee loolu may mbër bu mag damay toog xaar du ma dem ndax su ma demoon mu jàpp ma. mais bi nga jëlee sër li ka amoo benn. non fan yii moom kër ga day saxaar Sadio Mané war na gaaw ñëw kër ga day saxaar Sadio Mané nag lay xaar. reliquat bi lu ci. ah 2000 la fa des kër ga day saxaar amul dara man kay damaa bëri si nii. kër ga ne saxaar mu toll nii Kéba Kanté gisuma ko. na am beneen combat. ah beneen ay combat laa ay combat waaw combat yi doon doon du ma jël booy ñu ne message du ma jël wuli du ma jël liiru jaan waaw ñii ñoo daan. mais ñooñu ay comédien lañu noonu ñoo ñooñu doon. dama bëgg dama bëgg journaliste yi xam lan mooy làmb bu làmb bu mu neex rek ñoo Tafa Gueye sama booy kii 2000 daan wuli 2000. ñooñu ay comédien lañu. nañ ma jox caat booy bambara làmba gi noonu maanaam armé laa daal mu naan armé nañ ko xool ma moom ku leer làmb ñoo ko moom suñu cosaan la dañ ko war a fooyee làmb kenn du ma ko fooyeeloon nii làmb ju neex ah mais koy fooyee ñëpp kontaan làmb ju neex ñëpp wul sëna ma tey am ngeen combat non combat bi Washington boo ko degee rek mooy ko bi jeex na làmb ji ku yéex doo génne gis jël bi ku ku yéex doo ko ki muy moom mënu ko kee tamit mënu ko kon lamb ji war naa mën a gën a gën a gaaw Saba moo ngeem moo ngeem lu ñuul li suñu ndey joor la féete dofu jaas moo féete suñ dofu jaas ak saba Saba ak Dofu Diaz combat spécial ayca Saba ak Dofu Saba moo ngem boo ngem Saba moo ngem boo ngem lu ñuul Dofu Diaz moo ngem kabaa ngi cokaas faali mel ngi saba à droite Dofu Dias à gauche korante nañu bàyyante ah, ma ñaari mbër yaa ngi xeex saba ak Dofu saba ak Dofu Samba ak Ndofou Dias laa ilaha illallah oh Samba. loolu moo yooyoo da koo yooyoo. loolu moo yooyoo. da koo yooyoo. Ah waaw waaw waaw mais Samba de. waay déggal Fass waay déggal ñaari mbër yaa ngi ni teg. saba jëlaat na ko dofu jaas daga hee ee waay dofu jaas saba waay non neexul ba neexul waay ñaari xale yaa ngi ko yooyoo sànq da ko la waat leen waaye dañoo yàgg ci mbapal yi Fadim xamante ndaysaan saaba ak dofu jaas ndaysaan saaba dofu jaas saaba ak dofu saaba moo féete suñ ndeyjoor dofu jaas moo féete dofu jaas moo saaba dofu jaas ayca ayca ayca ñamalaat leen ma loolu Fatim. oh là là dafa door ci suuf. nañ ma jox Fatim la amoon sànq. lan la lan moo amoon. suqante bi bëgg naa ko Fatim. man xaw ma menace laa lay booleel xaw ma musu laa lay booleel. bilaay du ma saytaane Fatim dégg naa booy diaspora bi di ma tooñ naa ma liiru jaan li wax dëgg la yaay tonton saytaane yi ñu may tooñ baax mais yaa doon wax liiru jógal bëre. maa ko doon wax te naan ko liiru looy ngang liiru. jógal bëri. ñaari xale yi li ñu débuté woon baax na. li ñu débuté woon koy bëgg a yàq Fatim. ñoo ngi koy bëgg a yàq da baax. mais buur stade bi car macha allah fees na del. day neex. jëy seen aye. seen aye wax nga dëgg de. jëy seen daanaan la Fatim jeex na. faaram ñaari xale yi mën nañu bëri waaw dafa jaas daf ko fàqat ñu ànd sukk ñoom xoolal xoolal lii dafa jaas ak ak saaba ndeysaan am na léegi ñu ne omo bu ñuy jënd bu tudd saaba omo bu bees la xanaa fa yàgg na kay yàgg na boo demee laaj ko mu naa saaba man damay laaj ko mun man la sama na marabu laa xam. déedéet Omo Saba laa la. ayca ayca ayca ayca ayca. wan leen ma fula. lan ma woon fula maa ngi bëgg a yow da nga fi ñu toll nii defuñu fula nga fa. wala defuñu fula Fatim. mais ngi def fula. li ko Lamine di waxee xeex xeex nañ ma ko jox Fatim nañu raag Lamine. buur ndeysaan euh, euh, euh, le président des amateurs muy du daan jekko ma nga ca kaw wallaay ndeysaan góor si selub jal bi xoola waa Fass xoola Serigne Ndiaye na muy mange oh dañoo mën bis na car macha allah eh waay lig ni ko laay laay Fatim nañu ko bàyyi nañ ko bàyyi lig n'est pas criminel nañu ko bàyyi Fatim opérateur économique la Fatim nanu ko bàyyi nanu ko baal dafa jaa saaba Fatim lu dox combat bi dara amagul Fatim waaw xam nga buur dañoo sombo waaye fu ñu toll nii dañ ne tekk defatuñu benn action defatuñu action bëre wuñu xeexuñu kon ñu nag bee fu ñu jëm Fatim xaw ko tooñ la oh yow kii ak garabu boobu bu rëy bi bu mel ni dof la. garabu boobu bu rëy bi nga wax. waaw mais bu xamul ne rek bul jaarale oh oh oh, oh, oh. bul jaar caméra yi moom oh, waay waay yow kii kan ndeysaan mbir mi xoolal xale bëgg am ah, buur maa ngi bëgg a gëm sa wax nag. neexuma Fatim. Saba Saba ngi noonu. mais nañu bëri Fatim. nañu bëre ak doomu jaas ñi ngi bëre buur ñi ngi bëre maa ngi bëgg a mer ah buur non bul mer ñi ngi bëre bul mer ñi ngi bëre bàyyil gaaw a mer ah Thursday. yaakaar naa ni drapeau bi drapeau la de. drapeau PDS la maam Ndiaye la ko tuddee la députée de la diaspora. car macha mu ànd ak une forte délégation. mooy làkk espagnol naan regesta perto contemento. moom la maam moom la moom la moom dabar histoire gis nga lima may wax Fatou. bugguma lii da baax bugguma sama xol tàng na lii neexuma fàtte. wóor dëgg la dëgg la. doomu jaas avertir nañ ko. waaw waaw. ndeysaan Babacar ngi noonu ndeysaan. waaye Sitor moo arbitré combat bi buur. ndeysaan far dëggal waya. waaw e waay bàyyi leen te laale ndeysaan a ah, ca dem mais buur mais buur mbër bu daawoon dégg way bi def ci moom Moustapha Gueye daan na ko wax saa yu ma déggee ay yalatu xaar ma yëkkati ko nee na koo mën a doon eh, runkum daja na saaba jël na ko daan na ko way way way way Fatim suñu plein la bien vrai que suñu la nekkone léegi delu na kërëm sen dëkk ñoko wolu mais combat bi nga ko préparé écrit grand mbooloo la préparé combat bi té am nañ si yàqin ne pare nañ si lépp arbitre soufflé ñu def li ñuy def jibi dañ ko légui bi Serigne Ndiaye dawé ñëw ci mom mom nga nga diko wax pour mu dal. non pour bañ ko wër comprends nga mais mom limu yor wolu na ko comprendre nga né dako wër 10 fois ça mais garaawul affaire bi si gëw bi la waaw bu arbitre soufflé ngeen gis lu reuy bu nexé ah lu reuy ngeen di gis bu nexé yalla tey mu lamb. léegi mu lamb buur lii lañ naan wurewa dem na kang waxi mag dem na. foog jël am. ay foog jël am waay waa Kayaar gisuma leen ne waa Grand Yoff ay Faly ma ne waa Fass. waaye nee nga ñaari xale yi dañoo xamante. xamante nañu daje nañu mbapat ba ñoom ñaar daje nañu mbapat ba taay leer. waa buur mbaa dinañu ñoo sànnee i la lacrymogène. loolu la. waay lii waay ndeysaan Gris Bordeaux ngi nii ndeysaan Gris Bordeaux woon na Serigne Ndiaye di ko jox dernier Mebour Cheikh Omar Cheikh Omar Gris Bordeaux Serigne Ndiaye ndeysaan ndeysaan buur Cheikh Omar Cheikh Omar ay ca li am na suguf sumu yor di ko suuci suuf Fallou la baax waaw am na am na lu mu njëkk a ki nga xam ne moom mooy sëriñ waaye arbitre baa ngi leen di lamb ba xam ba xam la ñoo diw wala diwuñu xool nañu seeni we ba am kenn amu ci wayu gudd wala. waaye Pa Thier noo gisee ñaari ay naatangoo lañu ñaari naatangoo suñu bëree mu neex bu ñu joxlante it mu neex. jërëjëf Pa Thier nee na bu ñu bëree mu neex na ñaari naatangoo la. ñaari xale lañu Fatim Diop da baax. ayca dama jox son. Libidor ëf na suuf si tibb na suuf si ëf ko ndeysaan waaye buuru lii bugguma ko ci mbër tooñul dafa mel ne dafa diw ñu di ko fomp xam nga Libidor heure bu sottee ko ndox day wow ko da nga seet moo ma jaaxal Fatou parce que loolu la ratifié sànq ci ci mu a jërëjëf buur jërëjëf buur jërëjëf buur laa ilaaha illallah xalifa ngi wax ak ñaari jeex na Fatim arbi day sifflé Grand Yoff Molo dëgg Kayar Serigne Ay de écurie le combat de la clarification d'abord. Libidor bi mo nek premier sortie am ca ba mu ñibé Kayar. waaw waaw ba mu ñibé Kayar. Amna ben avertissement mom Libidor. Serigne Ndiaye pare na. arbitre laaj na leen ndax pare nañu. arbitre sifflé na Falim Diop d'abord. ji bi 23 minutes. drapeau Mam Diarra Fam. ji 23 minutes. ay Fatim tey bii bés ay jëy seen yaa ñu jox lii Fatim ñu ngi Leewtoo wet Libidor dellusiwaat Libidor moo dagg Leewtoo bi Libidor dagg na Leewtoo bi dellusiwaat acca Serigne Ndiaye Leewtoo eh, Libidor Serigne Ndiaye ko yóbbu Libidor ko yóbbu latéralement Serigne Ndiaye ngi dem moom latéralement waa Libidor taxawul. Libidor taxawul daggaat na Leewtoo bi buur. daggaat na ko Fatim daggaat na Leewtoo bi lu tax dañuy indi ci digg bi balaa combat bi di am di am ay litige Fatim. waa Libidor la buur. Libidor la Libidor moo taxaw. mais nag taxaw Fatim. ah Serigne Ndiaye cokkaas na. Libidor jàppante la bëgg. am ndeysaan dégg nga pàcceer nee na Libidor du taxaw bëre bi lay wut. jàppante bi lay wut. ci digg géew bi Bathie wax na dëgg mu jeex. ngi lewtoo ñoom ñaar Fatim. mais buur ndeysaan bu làmb tolloo fii. géwal yi tëgg ak yi way rek ngay dégg. ak ñun reporter yi waa Serigne Cokaas na léegi. Libidor bëggul taxaw. Libidor bëggul taxaw waaye yàgg-yàgg dem na. Ah, door bi du nekk ci moom moom Libidor. Libidor dem na songu door na. door nañ ko mu daanu. lan door la Serigne na Libidor Fatim. lan laa la door na ko mu daanu. ñëwoon naa la Libidor. xale beeg ci yoon Fatim. nee naa la Libidor. non ñëwul Fatim. ñëwul. Omar. dafa gaaw doole ndoxul jàmm doxul doole doxul jàmm. gis ngeen mbokk yi lamb jàng noonu Serigne Ndiaye continue à faire ses aventures espoir la biir Fass yaakaar la biir Fass moog li bi doon daje ñaari yoon ba pat mu nekkoon 1-1 tey c'était le combat de la confirmation Serigne Ndiaye wane na boppam ci mën a bëre bari doole macha allah di xale. waaye li mu doon te pas démérité xaar ak mbokk yi lamb jamonoy lamb ak Dakaractu duñ leen bàyyi benn yoon fii lay xawee gën a neex gën a gaaw gën a sûr kon ñu ànd ak yéen ba dimanche prochain